cas communautaire jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus ni nga xam ne noonu lay yokkoo ci réew mi ministre de l'intérieur alli nguy Ndiaye jëlub ndogal ngir askan wi di sol ay masque ci yenn bërëb yi ñoo ngi ci Touba gaar bu ndaw fu jegewul rekk marché Ocass bi ñi nga xam ne ñoo di takk der yi wàcc ci terrain bi ngir saytu ñi nga xam ne ñoo di askan wi ndax ñu ngi sàmmoon sàmmonteeg ndogal bi ñuy xalaat ne comme lii ministère bi digle ne nañ ko def muy takki masque am na ci solo ñun buñ sañoon tey feebar bi dootul am ci Sénégal waxuma la Sénégal mais àdduna bépp dootu ci am kon police yi liggéey bi ñu siy def nii liggéey bu mucc ayib la mucc liggéey bu baax la parce que comme kaaraange la nit ki moom lépp lu koy may wér gu yaram rek defe naa ne loolu war na koo mën a def. loolu de boo xoolee depuis démb la commencé démb heure bi lan commencé jëfandikoo masque yi boo xoolee ni lu jiitu loolu amu fi woon dañ daan doxee nu leen neex te boobu xam naa ni ndigal li demee wutoon waaye dimb heure bii nii. ba tey jii moom daanaka ñëpp ñu ngi takk masque boo xoolee ne amul kenn koo xam ni takkul masque boo xoolee bu dee juróom fukk yoo jël ñeent fukk yëpp ñu ngi takk masque. ñu ñu programme masque yi rek di ko takk parce que masque yi comme moo ñuy aar tamit nañu am fulla pour dund li waa ji wax am leen fullaay dund mais instant yi moom foo ñu am fulla pour mën a dund takk masque raxas suñu loxo ak sel ba mu set parce que doomu aadama nekk nañ ñu nga xam ne il faut nga nga nga forcer leen dara pour ñu mën ko def te tey feebar bi grave na grave bi nga xam ne que sénégalais yi xamuñu ko sax gravaay bi mais dañ sant yàlla bu baax man ànd ànd naa ci ci masque yi te incha allahu rabbi dama koy tàkk fu ma toll. am na ci nag ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ba ñu mën koo jënd ndax tal nañ leneen lu dul jëndi masque ñooñee sëriñ bi di saaku ñu dimbali leen. bëgg ñëwaat ci wàllu takk der yi du mën a jënd maska ki jug di wuti lu mu lekk amagu ko boo ne ko masque koy sonal ki amagu lu mu paase nga ne ko masque da koy sonal. kon nag ñi ngi ñaan ñëpp daal yàlla suñu borom defal ñu taw féex Abdou Niang moom Kaolack la bàyyeeko woon ñëw fii ci Touba jàngoro ji tëj ko fii ndax mën suta dellu diggante bi njaayu masque mi dox lool mu ñëw di ci daan dooleem ngir am lu mu ci yóbbu këram. moo tax ñu gis masque yu dox ñu yëngu ñu ciy yëngu di ci wut luñ dépassoo dama jënd sama tiise yu doy jënd samay matériel jox sama tailleur mu may ñawal may wër di jaay masque yi bu na taxaw na ma fanweer dépasse dong lañ ciy boo gisee ni ko gars yi utiliser ñun yorewuñ ko noonu dañ koy def ci mbuus respecté ko te xam ne dañuy xeex doomu jàngoro bi muy coronavirus bi te buñ ko téyee te wutuñ mbuus àmbale ko mën na jur beneen beneen mën na am yeneen conséquence moo tax ñu doxalee ko nii waaw dépasse daal lañ ciy wut te seeraluñ ko it benn 200 lañ koy jaayee. jàngoro ji bu njëkk fii ci Touba am na ñu bëree bëri gëmuñ ko woon waaye tey ji luñ gëm la. Touba moom loolu moo leen xam nga leen tardeel ñaax a gëm te maanaam lii moom lu wér la moom ña nekk dem dem Amérique ak États-Unis ñoom werante wuñ ko ña xam ne ay mille mille mille personnes sa gaañu werante wuñ ko. te it loola luñ xamul loonoon la mais biñ demee ba xam ne carrément lii am na xam nañ ko gëm nañ doog gëm nañ ko xañ na gëmu gëmuñu woon ko 100 pour cent mais nag léegi gëm nañ ko 100 pour cent loolu kese la woon. gëmuñu woon ko nag bu njëkk mais déjà léegi dem na gëm nañ ko 100 pour cent parce que dégg nañ cas yi ni muy doolee ko ak li muy def. kon léegi ñëpp gëm nañ ko. waaw maa ngi ñaax ñëpp rek kenn ku ne daal na gëm ni na góorgóorlu tey nañ jiital ci tuub tuub set gi am na solo lool waaye ku sunu borom nam mu dal la loo set sedd na la dal. nan jiital tuub ndax sunu sëriñ ci la nekk ñu fii ci Touba askan wi ñu ngi wéy di takk masque yi nga xamante ni moom la ministre de l'intérieur digle ci marché ocas bu Touba nag jël nañu dogal ne fan yi daañu ko tëj ci ñetti fan di loo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci xalif général des Mourides. ngir désinfecté waat marché bi setal ko waaye xool noo xam ne noonu lañ ko war a organiser waat